processus là, parce que man chef de parti là, chef de parti là nek ci opposition bi euh, di Jigen. alors c'est important pour euleuk li tax mané ne la du euh bi nga xamee ni président woté na dialogue kenn ku ci nek da nga amone pour ñeu wuyu si ñi ci dess wuyu si wuñu kenn ku ci nek am nga say raison mais kenn ku ci nek da nga jël sa responsabilité par rapport ak sa parti bu dee ku melni ñun waxtaan ak sa parti def li la sa parti sant loolu bi mu amee ñun en toute souveraineté ak li suñu parti bëgg dañu bokk ci dialogue bi parce que dañu jàpp ne li ñu bëgg loolu moo ñu ko mën a may li ñuy wut loolu moo nu ko mën a may la ñu jàpp ne war nañ koo def ci Sénégal loolu moo ñu ko mën a may parce que fii juróomi at yii di ñëw su fekkee ni jàmm rek ngay ñaan ci réew mi juróomi at yooyu defe naa ki fii nekk xas fee nekk ba pare war ngaa mën a wax ak moom loolu mooy suñu sentiment moom la ñu suñu parti sant bi nga xamee ne nag dem nañ ci bi nga maa ngi ñëw bi nga xamee ne dem nañ ci euh, mu ñu toog ba ni ñëpp mënuñoo ñëwandoo ndax parti yi bari nañ ci Sénégal il faut que mu am ñoo xam ni dañuy nekk li ñuy wax comité de pilotage ñu ànd ak président Famara Ibrahima saañ ba loolu amee ñu ni juróom-ñetti fukk ak juróom yi def euh, opposition am na ci juróom-ñaari nit juróom-ñaari nit yooyu su fekkee de man may parti opposition bu jigéen dirigé euh, boo xam ne tey am na góorgóorlu na ba am député boppam assemblée parti mi ko fa yaakaar naa ne juróom-ñaari nit ñi bu ñu bëggee jël benn jigéen jigéen boobu mënumaa mooy donc sama mérite moo ma fa yóbbu waaw bañ ca bokkee nag euh, tem yañ ñu jox muy commission thématique yi ànd nañ ci la nga xam ne ñoo ko bëgg aussi mu dollee ko ci commission thématique yi ñun ñoo ko sàkku ñu nangul ñu ko tey muy juróom-ñetti commission thématique. Sénégal gii ñu nekk man dama wax barki dem bi ñuy wax hausse des prix de l'électricité ak marché bi dama ne ku nekk ak sa espace ku am chance su dem assemblée foofu la débat démocratique bi nekk da ngay yëkkati sa loxo ñu jox la nga wax li la ñor en toute responsabilité ñi nga xam ne ñu ngi ci média yi comme yéen.

am na ñoo xam ne boo wàcce woon yàlla ñun ko bindooñu